fitna le prophète dit la guerre d'or il y le ko xëyee mhm. mais vous faites ni est yi njiit yi mhm. ñu yalla mhm. bu fek demain ni politique lan satch juroom juróom mo moo politique satch war wuruuj fen tas ko <laughs> non politique li mooy politique Platon disait que la politique est nécessaire mais politique